ذات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات بوك جولدي بوك تالبي نيجي لين دي نيو دي كادو سي نديغالول الشيخ محمود ملتقى الخليفة العام للطريقة المريدية ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko ak wér ba naa li am ko ci liggéey Serigne Touba suñu borom may ko kattan ak yor ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee mu yónni ma ay kàddu yu ay kàddu yu cant ak i ngërëm sëriñ bi wax ne day jaale ñi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko te nekkoon ci seen liggéey bi doon ko liggéey moom di liggéey Serigne Touba ci ndigalam ba yàlla def seen bakkan rot neena nee nay xamne lam leen waxon rek nay xamne ñoy shahid lañ shahid nak dara upp ko daraja ndax o man yaxruj min baytihi muhaajir ilallahi wa rasulihi thumma yudriku fil mawtu faqad waqa ajruhu kon ñom lañ doon am nañ ko te ku ne xamne ne kat di liggey Serigne Touba ba sa bakkan des fa dara lu ko upp yaakaar amut kon nag sëriñ bi nee na seen ñi nga xam ne ñooy seeni bokk na mu xel dal ci ñoom ngir xam ne wóor na ko ne ci liggéey sëriñ Tuubaa lañ doon nekk ba seen bakkan des fa kon nañ xam ne wóor na ko ko na leen wóor na sëriñ Tuubaa jëf kon nag ñi ñaan eh, ku ne ñëpp bu fekkee bàyyi na fi njëw yàlla na suñ borom aaral leen jëwat ko te xam ne fañ nekk moom eh, moo leen dàqal fii ñu nekk wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaun inda rabbihim yurzaquun farixina bima aatahum allah min fadlihi kon loolu mooy li kàddu yi nga xam ne waxoon ne naa ko yëkkati jëme ko ci seen i bokk jëme ko ci yéen itam ndax ci yéen lañ nekkoon ànd ak yéen waare ba des mustaanisiina bi askaarin waayaati حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هن ولمنا في المقالات خوم بأسلحة أعداءهم خهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وحزلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع